kilifa jataay gi di sëñ Cheikh Thioro honorable député fii sa assemblée nationale di ko wax ne ñoo ngi rafetlu liggéey bu am solo ba mu fay def ak taxawaay ba mu fa am nekkal fa askan fi askan wi di fa jooytul waa Touba seeni problème ak seeni jafe-jafe yi ñuy dund donc ñoo ngi koy ñaanal honorable yàlla na yàlla gën a wéral ba nga liggéey bi nga fay def nga mën koo eggalee ak sa sago di ko rafetlu bu baax a baax di gis taxawaay bi di wax ne aussi euh, ñoo ngi leen ñi encouragé jigéen ñi ñëpp ñu fi tee waaye rawatina jigéen ñi parce que mën naa ne jigéen ñi fépp fu parti bi parti politique àgg mën naa ne jigéen ñi la parce que ñu on représente 51 pour cent de l'électorat du Sénégal donc mën naa ne ku fi fal ñoo la fal ku fi folli ñoo la folli donc dañ leen di encouragé ngeen gën a jàpp si projet bi dem bindu ji ut carte d'identité avant ñu ubbi kii électoral yi fekk nga am seen carte d'identité comme ça bu ñu ubbee liste yi ngeen mën a dem am seen carte électeur parce que nag mbooloo mi am na solo lool nit ñi bàyyi aussi am na solo mais nag am carte d'identité mooy arme bi gën a wóor parce que moo fi mën a jëlee nguur gu bët gi fi nekk di nguuru Macky Sall gi donc ñoo ngi leen di encouragé dina wax ngeen gën a jàpp gën a taxaw voilà di leen présente aussi délégation bi ñu àndal si njiitul Ami Kunta di présidente di adjointe euh, à la présidente suñ coordonnatrice Mame Fatma Mbodj nekku fi mais moom it ñoo ngi koy ñaan ko wax ne ko ñoo ngi gis liggéey bu solo bi mu defee sa assemblée lépp ci liggéey bi rek li tax ñëwul moo ko tënk di leen présenter aussi Mame Diarra Kandji bokk ci magi Pastef fii nekk adjointe Anta Mbaye bokk ci commission euh, sociale dirigée par Ndeye Anta Bousso aussi nday aji xaji aji ñaŋ moom it bokk si nekk commissaire au compte voilà man naa lii mooy délégation bi di encourage di ñaa encourage suñu bokk jigéen ñi di féliciter aussi euh, madame madame Mbacké aji di ko wax ne kontaan nañ si euh, accueil bi ñu réserver ñoo ngi koy ñaanal aussi lii yàlla na ba mu nekk première cellule bi nga xam ne dernière cellule bi nga xam ne moom lay installé fii parce que nag ku wax euh, kii wax massification man naa ne euh, euh, Touba boo xoolee région yëpp Touba li ñu fiy installé si cellule boo boolewoo région yëpp li ñu installé Touba cellule par mois li ñu ay cellule si Touba mën naa ne moo ëpp yooyu yëpp donc ñoo ngi ciy remercier loolu bàyyi ji liggéey yi nga xam ne moo yor liggéey bi ak son adjoint Moustapha Gaye di leen encourage aussi di leen wax ne liggéey bi am na solo sax fi jàpp foofu la di encourage su moroom jigéen yëpp ñu jàpp gën a góorgóorlu ba incha allah élection 2000 présidentielle 2024 yi ñu mën a fal président Ousmane Sonko mu nekk suñu bopp réew mi bu ñu mën a changé réew mi mën koo liggéeyaat jërë ngeen jëf. Euh, jërëjëf soxna xadi baabu kontaan nañ bu baax a baax ci kàddu yi am na solo ñu leen di xamal ne nag soxna Anta mbay mii. li ñuy monter fii def cee liggéey liggéey bu am solo ndax euh, soxna Xadi Male ñoom ñaar ñoo ànd liggéey mu dugal ko ci parti bi aji soxna aji ànd ak moom ñu jaay carte yi vraiment waa Ndaamaatu ngir ñu ngi leen di ñaan ngeen mayal ñu ko loxo bu baax a baax a baax ndax jàmbarla la euh, ci kaw loolu dañuy dugal euh, Sëriñ Abdoulaye Yaqin moom tamit di jeune bu engagé ci koñ bi Euh, di ku jàmbaare ci parti bi ñu am ci moom yaakaar may leen ko loxo waa Ndaamaatu nag affaire yi xaw na nooy tuuti. ab sëriñu daara la waaw. mooy sama identification quoi. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuy waa mbooloom yëpp di dalal kilifa yu baax yi tedd yi di ci jiital sëñ Cheikh Thioro honorable député coordinateur Pastef Touba di ku jàmbaar fee mu nekk ci assemblée nationale ñu koy siifur ci. sax su ne heure bu ne heure bu jot saa yi fa plénière amee wax dëgg yàlla ñu fay liggéey liggéey bu am solo mu fay taxawal waa Touba xam naa ne ñu lay suivre moom wax dëgg yàlla rëcc wuñu lan nga doon teewalee waa Touba fële ca assemblée nationale ndax mi nga fay taxaw taxawaay bu am solo di fa kaasal lépp loo xam ne jàpp na rek jafe-jafe Touba ki nga xam ne moom la soxal saa yi fa ñëwee dana ko ko gaaral kon jërëjëf sëñ Cheikh Thioro barakallahu fiik di rafetlu bu baax jéego yu am solo yi nga xam ne parti bi seqwaat na ko lii dafa bokk ci doxal ab parti ñu ngi nuyu sëñ baay sëñ Mbacke mi nga xamante ne si moom mooy chef de quartier koñ bi maa ngi ji maa ngi jégalu lu baax sëñ Mbacke Ndiaye di ñuy sëñ baay Jili mi nga xam moo ànd ak sëñ Cheikh ak ñi nga xam ñu bokk délégation yëpp di wax ne lii lu ñu rafetlu la bu baax man ab sëriñ daara laa li ma xam mooy jàngale alquran 4 heures du matin suba timis takusaan amuñ benn jot donte que am nañu bëgg-bëgg ci chaque jour ñu bokk ci ñi nga xam ne ñooy liggéey ngir parti bi gën a yaatu ngir président Ousmane Sonko nit ñi ko xam ngir président Ousmane Sonko nit ñi gën a am ci moom yaakaar gën a am ci moom confiance pour 2024. donte que am na yéene bi waaye lu mel nii rek xanaa moom ma tax a mën a taxaw ci lii di wax ndax soxna si wax dëgg yàlla di ko am engagement bëgg lool li muy def te it mu woo gunge woo taxaw bu baax ngir xamal ko ne ko waroo toog rek waaye da nga war a jug participer comme ni nga xamante ne si noonu la sa mbokki jigéen di participer ndax am nga doye bi am nga bëgg bi am nga engagement bi. te lii nekk benn màndarga boo xam ne dafay baax lool ci parti te mooy chaque jour rek ñuy gis ni muy doxee te ni muy doxee bokk na ci di ubbi ay seli ak di taxawal ay section ngir ñu xam ne kat parti bi ay tànk la yor dafay dox fu mu yem tey suba day doxaat jëmaat beneen côté ku nekk nag yaa ngi namoo dëkk ba nga nekk yilif ko comme sëñ Cheikh Thioro di coordinateur bu sañoon dëkk bi nga xam ne mooy Touba tañ teg ko fi moom mooy gën a yaatu gannaaw ci mbooleem fu parti bi nekk ci réew mi te mooy mu fexe ba ñeenti koñ yëpp ci dëkk bi fu ca nekk mu taxawal fa seli mbaa mu taxawal fa section kon loolu lu am solo la bu yàlla dogalee tey muy dox di dox ba agsi fii ca ndaamaatu ñu koy taxawal soxna aj Mbàkke muy ko mérité wax dëgg yàlla ak xaritam bi nga xam mooy soxna Anta jàppale ko ci lool bu baax sax dooleel ko ci xëcc ko ah xeemam loo ko ba tax mu ñemee ndax soxna ji moom mën naa sax amutoon engagement bu bi parce que wax ne man awuma employé temps bu may may teewe ci yenn yi waaye la fait am na ku nekk ci wetam di ko doolee ak dalal xelam moo tax mu engagé wu te bëgg lool yàlla dogal mu jaay wax dëgg yàlla carte ànd ko soxna si ah, nañu nag bu ma sañoon bu ma taxawee gis leen ndax ma xaw am fi tuuti moo tax ñu ne ko amul benn problème incha allah saa yoo xamante ne sii bëgg nga rek saa yu ñu foo bëggee rek taxaw incha allah ngir lépp gën a baax gën a rafet moo waral bi nga xamante ne si wax dëgg yàlla am na ay déplacement yu bi def sax ngir bëgg def massification bi mu ñu ko waxee wax dëgg yàlla dañ ci ànd bu baax sax ah mu ngir bëgg a yaatal pour fexe ba carte yi mu gën a yaatu ngir bu xamee ne fii kat jaay na fi ay carte yu bari mu delluwaat ci ñi nga xam ñooy kilifa yi muy sëñ Cheikh Thioro mu ne man de jaayat naa ay carte nangam ngir bëgg a yaatal parte bi barab sàngam soxal nañ ngeen ñëw fa jàppal leen defal leen nangam bu ko defee ñu dem fa loolu yëpp defe naa massification ngir bëgg yaatal la kon ñi ngi lay rafet ñi ngi rafet loo baax di sant ci jéego yu am solo yi nga xam yaa ngi koy dox baax a baax a baax wax dëgg yàlla ñi ngi yokk am ci yow yaakaar liggéey bi rafet na fii ci Touba bëgg nañ bu baax ñun nag li ñu ameen mooy ñaan ñaan moo tax duñ la fàtte benn yoon ci ndonga daara yi ñun suñu jëmm ngir nga mucc ngir nga aaru ba suñu borom dimbale taxawal ba nga xam ne li président Ousmane Sonko am yaakaar ci nga def ko fii Touba dana gën a yaatu gën a gën a baax ba 2024 ñu fal ko insha allahu rabbi jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi wa jërëjëf sëñ Abdoulaye Yakhine euh, kaddu yi am na solo wax na ko léegi Euh, ci sëriñ Cheikh Thioro Mbacké xàmmeewul kenn ci parti bi xàmmewul kenn ki mu xàmmee mooy ki nga xamante ni moo am carte de membre am engagement ci parti bi pare pour parti bi rek ñor ko kooku rek moom moo ko ñor ñu leen di yëgal ne yéen ñii di doog a dugg ci cellule bi ki ci dugg tey ak ki ci dugg daawaati jéeg yéen yéen a yem ci parti bi boo xasee ba jëm carte de membre euh, cër bi nga xamante ni le président Ousmane Sonko am na ko ci loolu nga am ci parti bi am nga droit wax ci sa xalaat am nga droit jëf ci am nga droit li parti bi tax mu mën a avancer nga di ci nekk guddi ak bëccëg ñuy euh, nuyu sunu frère Moustapha Diagne mi ngi dugg ci parti bi depuis mille neuf cent quatre-vingt-dix euh, euh, deux mille dix-huit du moins Moustapha Diagne kon comme yaa ngi daamaatu en tant que jeune nga jàpp ci liggéey bu baax a baax a baax loolu dinañu neex trop ci kaw loolu dañuy dugal ki nga xamante ni moom moo jiitee jeunes jeunes Pastef yi Euh, Mansour Faye euh, moom mooy adjoint euh, Madiaw Mansour à vous la parole. Mansour. ñu leen di fàttali ne jàmbaar la moom aussi ngeen may ko loxo bu baax bokkoon nañ ci ñi nu jàppoon événement mars yi parti bi ñor ko mu ciy dox lu am solo. waaw ah, asalaamaaleykum waa Ndaamaatu ñoo leen di nuyu bu baax di leen ziar di jiral suñu kàddu nag di ñaanal mun Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di masawu aussi honorable député ndax jamono yi moom ku seetaan Assemblée national comme ni ko Serigne Abdoulaye Yakhine waxee di nga am fierté donte coono yi met na waaye di nga di am fierté bu baax a baax ci yabal gi ngi leen fa yabal wax dëgg yàlla seen taxawaay rafet na lool ñoo ngi leen ci sant bu baax leen gërëm fi ñuy bëgg a jëmale suñu kàddu mooy li fi dajale mooy cellule dañoo ñëw fii pour installer cellule cellule nag dem démembrement la boo xam ne dafa bokk ci parti bi parti dafa am ay dafa am section am cellule am euh, coordination waaw am am am congrès ak leneen copil léegi nag lii moo nuru li ci gën a li ci gën a suufee waaye ci dëgg-dëgg moo ci ëpp solo ndax Sëriñ Seex mi tey bu koy woowee coordonnateur parce que day am lu muy coordonné bu fekk bu fekkoon yii nii taxawut ci dëkk bi siñ Seex coordonnateur tur lay nekk rek waaye dëgg-dëgg du am njariñ kon nañ xam ne cellule mooy li ëpp solo ci parti bi ndax mooy base bi ci nga mën a ci nga sukkandiku mën a évaluer sa liggéey fi mu toll ndax bu ñu wax Touba tey di ko jiital ci Pastef ci Sénégal yëpp cellule yi ñuy monté ci koñ ñi la cellule nag dañoo bëgg cellule bu ñu monte mu am suivi ndax képp koo xam ne nekk nga ci koñ bi jënd carte rek dem daanaka dëgg la am na jaay nañ carte waaye kooko mën nañoo ba jot ci yow waaye bu fekkee da ngay militer ci benn cellule day tax ñu xam ne yow militant nga cellule sangam sangam ngay militer kon cellule lu am solo la nur na lu ndaw waaye moo ëpp solo man loolu laa jàpp damaa jàpp ne moo ëpp solo ci ci parti bi parce que boo demee boo arrière ci ay 2014 ay 2014 ci ginnaaw ñoom doon nañ bëgg sax cellule mu të waaye bi ñu commencé am cellule rek ci la commencé nag euh, ci la mbir mi ko tàmbalee dox comme ni ko sëñ bi waxee léegi euh, Pape Ndiaye bi muy introduire nee na nañ fexe comme ni ko yeneen koñ ñi defee bépp membre boo xam ne bokk na cellules yi muy quatre quatre cellules yi ñuy monté fii ku nekk ci moom na jàpp ne war naa mën a jaayaat vingt cinq quatre membres gën a structurer parti bi fan yi dafa am ku mën waxal koo xam ne mu ngi bokk ci waa bor bale mooy waa APR moom Touba dëkk mais nee na responsable la mooy Aly Ngouille Ndiaye loolu day wane ne parti boobu amul structure dëkk Touba sa responsable léegi di neew Aly Ngouille Ndiaye mooy sa responsable te Aly Ngouille Ndiaye dëkk Linguère du wotee du wotee du wotee fii loolu nag ñun suñ parti amul loolu parti bi benn coordination la am ci section bu nekk commune bu nekk benn coordination moo fay am bii loolu mooy parti bu structuré léegi nag képp koo xam ne da bëgg liggéey ci parti bi dëgg-dëgg faaw nga fonk cellule bi nga nekk d'abord te fonk cellule bi mooy fexe li ko gën a yaatal di ko massifier ku nekk ci moom jàpp ne yow yaay war a doxal parti bi yaay war doxal cellule bi jàppalante ak ki nga xam ne moom mooy euh, président cellule bi ngeen ànd liggéey liggéey bi gën a jëm kanam ñu ànd ko ak coordination bépp loolu moo doon kàddu yi euh, ñoo ngi jéggul bu baax a baax a baax jërë ngeen jëf euh, jërëjëf sëñ Mansour kàddu yi am na solo waxaat na ko yéen a ngi monté quatre cellules donc yéen a ngi monté section kon macha allah tey Serigne Cheikh Thioro fa mu nekk ca ndakaaru fu ci dem dafay siggi ndax ci Sénégal yëpp fi kii konk moom mooy ki nga xamante ni monté nañ fi max li ëpp ci cellule Pastef Touba ñoo ko fi monté kon yéen tey participer ngeen ci kon gàcce ngaalaama yéen waa Ndamaatu euh, ci kaw loolu dañuy dugal euh, femme tamit bu jàmbaare soxna Xadi wax ko aji euh, muy soxna Bintu Kan moom moo jiite femme yi wàllu jigéen ñi moom moo ko géré soxna Binto ngeen may ko loxo nag may ko tuuti courage voilà. Ah, bisimilahi rahmaani rahim bisimilahi rahmaani rahim. macha allah. ñu sant yàlla. julli ci sangu-sangu yi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam di ñaana sëñ mu Mountakha mu yàgg fi loolu di wér ñi ngi ñaan sëñ mu Mountakha Mbacke yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal soxna Aji Mbacke ndax euh, li mu def lu neex la ndax en tant que euh, leader Pastef en tant que doomu Touba en tant que sëb sëñ Baara fekk si sëñ Cheikh Thioro mi ànd ak moom pour mu monteeku ko loolu lu sedd suñu xol la tuñ jigéen ñi nag ñu topp si ginnaaw soxna Aji Mbàkke di ko jàppale ndax ñun changement rek moo ñu ñor ñun Pastef rek moo ñu ñor ku bëgg lu baax la te xam naa ni lu jëmale ndaamaatu kanam dong la dox ñun nag ñun mouvement Touba ndaamaatu ñu topp si ginnaaw soxna Aji Mbàkke jàppale ko ci ndimbalal Baye Mbàkke Ndiaye nag mi xam ne moo suñu chef de quartier te moom Pastef rek moo ko ñor tàccu leen loolu Baye Mbàkke Pastef rek moo ko ñor kon nag ñi ngi kontaan di sant di ñaanal sëñ bi yàgg fi loolu te wér modification bi ngeen wax neex nañu lool cellule bi nag ngeen ko wax rek lañ ko defee dana ko gën a yaata incha allah dana gën a yaatu dana gën a baax dana gën a neex ñun daa mat daal ñu si ginnaaw sonk ci ndimbalal Baali Mbàkke nag ak soxna aji macha allah. Euh, macha allah soxna Bintu bi soxna Bintu kan kàddu yi am na solo ñu leen di wax ne parti bi li ñu dajale fee dafa war ne parti dëgg la Serigne Cheikh Thioro Mbacke soxna aji Mbàkke wax na léegi ne daara la nekk daara lay jàngale guddi ak bëccëg wane na ne réew mi jamono jii ñu nekk dañoo nekk ci yoon woo xamante ni bu nu ko kenn yàqal gis ngeen évétement yi topp ci suñ ginnaaw caaxaan yi nga xamante ni moom moo fi nekkee woon yàlla weddi ba pare tegaat leen sanction yu gën a metti mooy cour des comptes li nga xamante ni wax na leen ko mooy sàcc gu metti gi nii sàcc alalu réew mi alal jooju seen alal la ndax yéenay fay impôt yi bëgg a doon ay buur def nit ñi ay baado mais Ousmane Sonko da ne loolu dafay jeex Pastef dafa ne lool dafay jeex àndu nawle la ñuy ànd te ànd nawle boobu dafa valable pour tout le monde donc euh, ñu dugal euh, soxna Anta mbay nee nañ dañ koy jox mu sànni ci quelques kàddu pour une minute soxna Anta euh, moom it mu liggéey ci liggéey am solo ñu may ko loxo bu baax a baax soxna Anta à vous la waa asalaamaaleykum wa rahmatullah waa Ndaamaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziar di jël nuyoo bi di ko teg ci soxna Aji Mbàkke mais mu jàllaleen ma ko ci ñëpp di nuyu jigéen ñu ñaaw ñii ma àndal di nuyu suñu coordinateur sëñ Cheikh Coro Mbàkke Sonko damaa ñor ma di ko xëcc di ko woo di ko woo tey ba mu ñemee ba def lii Ablaye yàqi na ngi nee mat na ma seede te lu amul seede baaxul kon tey yaakaar naa ni kontaan naa te bëgg naa lii ñëpp tiire ci leçon ndax lu baax dañ koy yaatal ndax àddina yaatal rek moo am solo dara amul solo te li ñu bëgg mënuñu ko am ci ñun kenn il faut ñu koy yaatal di ko ubbi di am ñu mel ni aji Mbàkke aji Mbàkke di amaat ñeneen ñu mel ni moom bu ko defee Pastef am li mu bëgg ci ndam li mu am nii day gën a yokk loolu rek laa ci doon sànni maa ngi kontaan di nuyu ñëpp. Euh, jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, ñu leen di yëgal ne ñun nii rek la ñuy monter cellule bi ñuy ñëw di monter cellule dañ leen a jaay euh, Moustapha Gaye mi daf lay jël jaay la carte ba pare jaay leen quatre blocs pour ngeen doog a ñëw monter cellule. loolu moo valable pour Touba yëpp instant bi mois bi yëpp ñun war a monter cellule jënd nañ seen i carte ba pare. kon Touba caaxaanuñu dañuy liggéey bu ñëpp meloon ni ñun 2024 euh, moom noonu de noonu lay demee mais kon écrasé nañ Macky Sall dañ koy doggali fii mu jeex incha allah euh, ci kaw loolu dañuy dugal euh, sëriñ ab sëriñ Mbacke Ndiaye sëriñ Mbacke Ndiaye moom aussi chef de quartier ñu may ko loxo bu baax a baax a baax lu ñu ko may loxo doyul parce que vraiment kontaan nañ salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp bayuma kenn tey ñaanal comme ni nga xam ne ñëpp noonu lañ ko baaxoo waxee te war koo wax sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool ta ànd ko wér xam naa pour ma commencer damay préciser loo xam ne chef de quartier gi euh, début de deux mille vingt et la maanaam ay deux cent ci la nekk kon laa nekk de chef de quartier deux mille kon yaakaar naa euh, bu ma nee Ousmane Sonko biñ ko rajee la ànd ak moom kon daka jiitu na kon yaakaar naa at yu bëree bëri kon Ousmane Sonko gi moo ma fi andi tey ci laa nekk waaye jëmmi chef de quartier gi moom ba muy ñëw fekk na ma nekk ànd ak Sonko lu yàgg a yàgg te woo naa ci ñu bëree bari ci sama xalaat ak ci sama doxin woo xam ne. yaakaar naa ku xam xàmmee Facebook wala WhatsApp da nga ma gis suba ak ngoon ba dem na bañ jàpp ne sax maanaam la euh, jaamootuma yàlla waaye jaamoon la yàlla lay def ndax li may jaamoo yàlla mooy lii jaamu yàlla jublu parce que jaamu yàlla gi mooy insiste bi nga xam ne muy tooñ gi nga ko tooñoon te xam ne moo nekk ci dëgg ci dëpp bañ ko rajee ba li nga xam ne mooy li ci xew ci événement yële ci accusation yoo xam ne ay du dara ay fen yoo xam képp moo ko moo ko lal te xamoon naa ne it ne tey jii barki démb ci laay mujje wax ne euh, maa ngi sant sama borom subhanahu wa taala ndax ànd gi ma ànd ak Ousmane Sonko yàlla tax ma àndoon ak moom waaye nag yàlla mayaan na ma ndam ci ay wax yoo xam ne yu wér la yoo xam ne xam nañ ne lépp luñ ko mas a jiñ ay fen la dañ ko jiñ lépp dara du ci dëgg kon nag loola moo tax ma sant ci baax a baax léegi nag pour bañ a guddal sëñ Seex Coro mi yaakaar naa ne euh, doom la waaye xarit ba ñuy ànd ci biir jokkoo ci biir euh, Pastef lu yàgg-yàgg la te it damay euh, xaritu baayam waa rakki baayam waaye ki nga xam ne mën nañ ko tudd it euh, bokk naan néeg lu yàgg-yàgg-yàgg muy sëñ Seex ma nga xam ne mën nañ ko tuddee moom mii loolu moom ñu bari xam xam naa dañ ko xam waaye xam na xam na xam na ma xam maa li ma booleeg moom kon dey lu réer yi waaye li ma booleeg moom dëgg dëgg nag mooy Pastef bi ma gis ca moom depuis bi nga xamee ne affaire bi commencé na ci Ousmane Sonko mu wax wax joo xam ne du ma ko fàtte mukk te danaa ko rappale mooy Ousmane Sonko moo ma dugal ci politique fu mu fa yem palaa ca yem te loolu moom la ñëpp dégg nañ ko wax ko fii wax ko fële maa li ci gën a yéem it maa ngi koy wóolu ci saa boo xamee ne génn jàpp naa ne lépp lu dox lu wóor na ma ne moom amul ay sikk ci lu baax rek nga lay dox kon ak jaamu yàlla laa jàppe man lii mooy mbirum Ousmane ànd ak Sonko képp koo xam ne it maa ngi la ci woo li ma la ci woo mooy jàppal ne jaamu yàlla lay doon ndax ab dëkk réew moo xam ne ñëpp ñoo ko bokk ay yenn gaay yi loo xam ne mëntuñu ay cinquante personnes bëgg koo xaakimoo teg eh, nit loo xam ne kenn xamul lu doon te teguñu ko fenn nag maa ci ay tappale ak ay fen waaye li leer te leer ma xam ko ma ma leeral leen ko ay bàqaar lañ ñoom ñoo ñuy jiitu ca kaw tey danañ daanu insha allahu fi kanam ñëpp gis ko ci loo xam ne daan woo xam ne dana leer loolu mën nañ ko bàyyi xel ndax teguwuñ ci yoon yoon rek mooy mujj mooy mooy dëgg rek mooy mujj te dëgg googu ñu ñëpp ñu ànd ak dëgg nag incha allah yàlla moo ne ñu ànd dëgg dëgg mooy mujj kon nañ jàpp xej loolu du ma ci nag moom waxuma ci waxu chef de quartier sama waxu bopp wax sama sama sama en tant waaye en tant que euh, citoyen boo xam ne libre na nekk ab patriote boo xam ne bëgg na Sénégal ci loolu laay waxee waxuma ci benn chef de quartier waxuma ci kenn nag sama bopp waxal jàpp ci woo ñi nga xam ne samay ak samay mbokk lañ ak képp ku mën a doon kon maa ngi leen waaye lii ma leen wax ne moom laa ko jàpp yéen it ñaan naa leen ngeen jàppe ko noonu jàpp leen dangeen di jaamu yàlla maanaam réew mi ngeen war a liggéeyal bu leen jàpp ne ci yéen la yemit waaye da ngeen jàpp ne seeni i sët waaye waxuma seen i doom waaye seen sët ëllëg la nga xam ne moo fi nar a ñëw ëllëg bu soobaa yàlla kenn bañ ko yàq kenn bañ ko yàq mbooleem li nga xam ne mooy dëgg daal nañ xam ne mooy mujj te it ci lañ nekk te bu ñu ci kenn jëlee maa ngi leen di gërëm leen sant bayuma kenn maanaam maa ngi sant euh, soxna Aji Mbàkke bu baax a baax dama ko war a jiital ndax moom Euh, ku baax la waaye ku am fulla la ku am pastéef la ndax keroog bi mu ñëw fi man di ma présenté na dafay bëgg samp daa fekk ma ma jënd lu mat deux mois ma jënd carnet denc ko di feteet nu ma koy nu ma nu ma koy joxee waaye ba ma ko waxee daan ko karne baa ngi nii man gannaaw yaa ngi samp rek yaa ngi ci koñ bi rek danaa la booleeg sama waa kër ñi fi nekk ñëpp ñu ànd ak yow topp ci ginnaawam moo tax moom laa def nii soxna ñëpp nañ ànd soxna jëtu ci koñ bi ah soxna soxna aji nit ñëpp ànd ak soxna aji ci koñ bi ànd ak moom topp ci juble maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, jërëjëf sunu papa Serigne Mbacke Ndiaye dafa wax kàddu yi am solo rôle patriote patriotisme nee na moom chef de quartier la mais dafa wax en tant que patriote mais aussi mu seede ci Serigne Cheikh Thioro ne benn kàddoom daf ko ñor te loolu ñu mën ko seede ne fekk nan ko ak ay malade ay ay mallette de xaalis mu fàtte ko rien que pour Ousmane Sonko te lii muy def xaalisam yàgg na ko fekke temps yàgg na ko fekke ba li ko ci fekk dog ko ci fekk kon loolu dafa valable pour ñun ñëpp tey dañu war a daje ak ñoo xamante dañ doy waar xam nga lii am nii musul am ñoom niñ daan def dañuy ñëw indi fi maletu xaalis jox leen ne leen def leen ay kafe mais léegi da ngeen a comprendre parce que loolu seen alal la woon zircon bi dañ koy wax gaz bi pétrole bi or bi ñu jël ko saax saaxee def ci seen poos li cees ñu sànnil ko tubaab bi yéen ñi nga xamante ni yéen moom alal ji ak seen i doom ñu ne leen yéen doo leen ci am dara da ngeen taxaw di ñu topp di ñu raamal ñu leen di may ay xaalis ngeen dem loolu jeex na. dafay jeex te yaakaar naa ne yéen jigéen ñi yéen ko njëkk jeexal li ngeen di def mooy yéenay jóg di dem ci marché bi dem di liggéey yéenay jàppale jigéen ñi kon ni ko sunu papa waxee ngal la. préparé wu leen yéen ñëpp seen i carte d'identité est-ce que yéen ñëpp am ngeen ko d'abord est-ce que yéen ñëpp am ngeen ay carte électeur ñi ko ci amul nañu dem uti ko ndax 2024 fii dañ ko fi yàgg a dañu ne dañ koy doggali waxuma liñ gënal liñ gënal mooy Touba bu fi am na fi am 20 cartes wala cinquante cartes asalaamaaleykum wa rahmatullah ci kaw loolu dañuy jox bàyyi Djili Gaye bi nga xamante ni moom moo jiite massification ànd ceeg Moustapha Gaye muy adjoint ñu jox Baye Jili kay mu joxe ci quelques kàddu ngërëm ak sant. man jaarawaat dàkkan asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ñoo ngi leen di nuyu waa cellule bi section bi ñu fekk si fii ci tey ci ndaamaatu di tàmbale suñuy kàddu di ñaanal Cheikh mun Mountakha mu yàgg fi lool ànd ak wér ah di rafetlu liggéey bi nga xamante ni Pastef Touba mi ngi koy doxee di tàmbale ci suñuy sant ak suñuy ngërëm muy sunu responsable bi nga xamante ni moo féete fii côté ndaamaatu gi muy soxna aji aji Mbàkke def fi tey liggéey bu am solo boo xamante ni ñi ngi dikk di ko gën a firndeel ànd ak moom ci liggéey bi mu jaay fi mu def fi ñeenti cellule maanaam mandarga benn section fii ci ndaamaatu loolu nag di liggéey bu am solo ak ñim ko àndal ñëpp ndax moom dong mënul dara ndax dafa ànd ak ñu am engagement ba tax na liggéey bi mën tey ñu di ko officialiser ay cellulam nii Euh, di sant ñi nga xamante ni fekk nañ leen fi muy Cheikh abla Yaqin mi nga xam ne ñoo ànd bureau bi bokk ci Pastef Touba ak sëriñ Mbacke Ndiaye mi nga xamante ni xam naa ko bu yàgg muy dox ci luy lépp lu yaatal parti bi fii ci dëkk bi am ci taxawaay bu rafet moom it jëndoon na ay carte bu yàgg xam naa nekk ci liggéey boo boobu ngir waajal ay ay ay ay selilam ñuy xamal ni liggéey bi lii rek la muy liggéeyu Pastef ndax parti bi lii la soxla ñi ngi sant bureau bi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi muy waa Pastef Touba ci njiital Serigne Cheikh Thioro mi nga xam ni mooy coordonnateur bi ndax liggéey bi liggéey bu rafet la bu am solo moom it mu tàmbali ko ci tàmbali woo xamante ni si serol la noon yóbbu ko ci diggante bu kawe kawe kawe kawe loolu nag ñu ngi koy remercier di ko ñaan ñëpp ñu tàcc ko ci loolu ndax liggéeyam la Euh, may gën sant waa commission massification bi nga xamante ni ñoom lañ àndal liggéey bi di jiital liggéey bi ci loolu muy Moustapha Gaye mi nga xamante ni moom laa àndal liggéey bi nga xam ni lim ciy def daanaka man defatuma ko ci lu ñu toll ci taxawaayam ndax lépp bu dikkee rek waxal la moom laa ciy wax te nañ ko bëggee bu ñu ko demee nañ ko amee ñuy rafetlu taxawaayam ñu koy tàcc ci loolu sant ñëpp ñu tàcc ko ci loolu euh, di gën a sant soxna aji mi nga xamante ni si moo ñu moo ñu dajale fii ndax rafet na mi ngi yaatal parti bi ci kemtalaay kàttanam loolu nag mooy li nga xamante ni si liggéey boobu tàmbali na te wurta mën a dal ndax liggéey bi mi ngi doog tàmbali ndax 2023 bii ñu jëm dañ cee war a duggee ak position boo xamante ni beneen facette la boo xam ni bokkut ak 2022 bi muy gën a accélérer installation cellules yi gën a accélérer yi gën a accélérer massification bi ci 2023 bi loolu ma koy dénk sama mbokk patriote yi nga xam ne ñoom la àndal di sant waa bureau bi nga xamante ni ñoom lañ àndal ñëpp di leen di wax cellule bi ñu fi monté tey bureau bi mi ngi nekk nii soxna Aji Mbàkke mooy jiite section bi mooy responsable section bi Serigne Abdoulaye Yaqin mooy responsable artisan trésorier Samba Diaw Samba Ndaw trésorier artisan Mam Mor secretaire secrétaire général Fatma Gueye secrétaire artisan Serigne Saliou seen commission finance moduba commission communication Bassirou Cissé commission organisation Khalil Ndiaye ak ñim àndal commission massification Dame Khouma responsable sën Serigne Saliou Fall responsable femme Fatou bintu Kiné Fatou Bintou Kane responsable enseignant Mousse Wade lii mooy cellule bi mooy a section bi nga xamante ni validé nañ ko fii tey ci ndaamaatu di ñaan mu gën a yàgg te diggante bu gàtt ñëw fi defaat fi yeneen yeneen i section ñu ngi sant di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu euh, jërëjëf Baye Djili Gaye borom massification kontaan nañ ci yow ak sa liggéey bu baax a baax a baax moom aussi ngeen may ko loxo bu baax a baax a baax waaw soxna Jaara Kanji moom magu Pastef yi moom mooy seen euh, coordinatrice mi ngi insisté nañu gën a wax jigéen ñi nañu góorlu ci carte électeurs yi ñi nga xamante ni bindoogunu ñu bindu ji pour comme ni ñu ko waxee sànq rek ñu gën ci bàyyi xel bu baax a baax ci kaw loolu nag la ñuy dugal ndeyu mbili ji jàmbaar ji borom ki nga xamante ni koñ bi yëpp nangul nañ ko euh, muy soxna aji Mbàkke ñu may ko loxo bu baax a baax a baax a baax soxna aji na ñëw nii asalaamaaleykum wa rahmatullah ñuy nuyu mbooloo mi fi teew yépp di jiital ci nuyoo bi mu taxa Mbàkke di ñaan yàlla suñu boroom yàlla na ko fi yàggal te mu ànd ak wér te ñu yàgg ànd ak moom ci barke bu baax di ziyaare mbooloo mi fi teew yëpp di jiital ci nuyoo bi tamit Serigne Cheikh Thioro Mbacké coordinateur Pastef honorable député ñu ngi koy nuyu moom it di ko ziyaar bu baax di ziyaare it euh, soxna Mame Fatma Mbodj honorable député moom it wax dëgg yàlla tënk-tënki jamono yi moo ko jàpp waaye bëggoon naa teew moom it ñu di ko nuyu bu baax di ko yónnee ni nuyoo ak ziar di ziare suñu baay Mbàkke Njaay mi toog teewal fi waa koñ bi yëpp waa ndaamaatu yëpp mu teewal leen fi ñu ngi koy nuyu moom it di ko ziare bu baax di jël nuyoo bi teg ci loxoom mu jaalaleen ñu ko si ñëpp di ziar ñëpp di nuyu ñëpp di jël wëlbatiku waat di dellu si ci bàyyi euh, sëñ Cheikh Coro Mbàkke moom tamit di ko nuyu di ko ziar bu baax di feeñal suñu mbégte ci moom bu baax a baax a baax a baax di jël bu waa Pastef yëpp teg ko ci loxoom mu jàllaleen ñu ko ci waa Pastef yëpp di wax Mbàkke nii nga def tay ñëw fii Ndaamaatu noonu nga defoon bërki démb bu fekk ñu Mbàkke Kajoor ànd ak délégation bu am solo bu yaatu ñëw fekk ñu Mbàkke Kajoor te ba nga ñëwee Mbàkke Kajoor naaj wu tàng nga fa ñëw te ba nga ñëwee ba nga siyaaree ki nga xam ne mooy xalifa bi mënoon nga faa yam waaye defoo ko sëñ bi dalaa recevoir ni la mukk duma la bàyyi nga dem dama lay téye mu jox la ay xéewal yaag bàyyi ji liggéey mi nga àndal ak Biram Diouf ak beneen délégation yeneen délégation yi yaatu sax macha allah ba nga jógee foofu mënoon ngaa wàññeeku dem ñibbi ni ginnaaw ñëw naa Mbàkke Kajoor bu ma tegee sama tànk ci suuf si rek dem naa ci soxna aji bi ma ñëwee ci sëñ Moustapha dem naa ci soxna aji waaye da ngeen koo jaayante la ngeen may woo mënu leen maa jot ndax réseau bu naqari da ngeen di wër ci naaj bu tàng beeg poussière bi mu koy wàccee ci seen kaw ngeen di wër ba gis ma ñëw ci man toog yendoog man màggal ak man macha allah yëkkati xaalis bu bari nag jox ma boo xam ne xaalis ba ngeen ma jox rek mënoon naa defar màggal ga macha allah may sant bu baax di gërëm bu baax a baax di gërëm Baye Djili miit bu baax a baax ak sëriñ Biram Diouf sëñ Ousmane maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di ziar tamit sama waa masjid bi di jiital ci nuyoo bi soxna Ami Kunta ak euh, soxna Anta Mbay mi nga xam ne moom sama lépp la su ma ñemee ci biir Pastef mën naa ne tey moom la grâce à moom ndax wax dëgg yàlla ku yàgg a bëgg Sonko laa ku yàgg a bëgg Pastef mu ni ma ñëwal ñu ànd dugg biir Pastef ñu liggéey ànd ak man di ma teete ñuy ànd di dem di dem campagne bi man ak moom gis ngeen ko fu ngeen gis Anta Mbaye gis ma fu ngeen ko gis gis ma ñuy ànd ci campagne bi fu ñu toll ñooy ànd muy guddi ñi ngi dem muy naaj ñi ngi dem fu ngeen toll ñun gis ngeen ñu ñun ñooy ànd macha allah muy jàmbaar joo xam ne it ku ñëpp ràññee la ci Pastef di jàmbaar lool ñeme guddi ñeme naaj kooku xam ngeen ko bu baax a baax di ziar soxna maam jaara kànj mi nga xam ne it moom it sama xaritu bopp la di ba magi passé fi moom it ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax a baax a baax soxna xarit baabu ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax yow tamit nga xam ne yaa yore wàllu coordination bi yow tamit ci jigéen ñi ñu ngi lay nuyu di la ziar bu baax di ñaan yow yàlla na sa jàmm yàgg yaa ngi yaatal bu baax a baax macha allah di ndey ji seex di tëddee njaaxaanaay di nuyu suñu soxna si nga xam ne it wax dëgg miinante wuñu bu baax moom it ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di sant it ñi nga xamante ni bis bi jàpp nañ ci bu baax a baax ndax dañoo wax ni kenn mënul dara ñi nga xamante ne ni bokk nañ ci ñi ci jàpp jàppale ñu ñoom tamit ba ñu ñeme di sëriñ Abdoulaye Yaqin moom it di sama xarit di sama càmmiñ di sama rakk di sama lépp moom it ma di ko ñaanal yàlla suñu borom yàlla na yàggal taxawaayam bu baax a baax a baax a baax si barke alxuraan bi nga xam ne moom lay liggéeyal sëriñ Modou Ba moom tamit di sama rakk di sama xarit di sama lépp moom it jàpp ci moom it bu baax a baax ma di ko nuyu di ko sant moom it bu baax di ñaan yàlla yàlla yàggal yàlla yàggal taxawaayam di sant bu baax mbooloo mu fi teew ñëpp di leen sant di leen gërëm bu baax ñëpp jàpp nañ ci bu baax a baax a baax kenn ku ci nekk ak fan ci jàppe ñi jàpp moom bari na waaye boo fi nekkee di lim da du sotti ndax temps bi maye ko te dafa guddi ñuy sant ñëpp bu baax di gërëm ñëpp bàyyiwuñu kenn sëriñ Moustapha Anne moom sama doom di sama xarit jóge ba sexaw ga moom tamit ñëw fi ànd ak soxnaam yendu fi jàpp ci liggéey bi moom tamit ñu koy sant bu baax di ko gërëm di sant it ñi nga xamante ni jóge nañ ba sexaw ga ñoom tamit jël oto ñëw ba fii ngir lan ngir cellule bi rek bokk ci liggéey bi ñoom tamit di yaatal ñoom it fa ñu nekk ñoom it ñuy bis bu mel nii ñu dem defal leen ko sexaw ga incha allah di sant it ñi nga xam ne ñoom laa bokkal koñ bi di sama waa jigéenu mbootaay yi nga xam ne seen mbootaay man maa ko jiite tey dafa am ay xew yoo xam ne dafa bari moo tax ñëpp ñëwuñu ndax programme woon nañ ko ndax mbootaay gi man maa ko jiite maa ko yor car macha allah téeméer nit ak juróom fukk te mbootaay gi boo ko xool fukki nit rek ñoo ci amu carte membre ci Pastef kon lii ñoom bokk nañ ci ñi ko taxawal bokk nañ ci ñi ko jàpp ñi ci jàpp ba mu mën a egsi fii ñoom it ñuy ay jàmbaar lool lu ma nekk tey ak suba ñoom ñi ngi ci ak man bàyyiwuñ ma benn yoon seetaanuñ ma benn yoon ñoom it may ñaan yàlla suñu borom yàlla ma yàlla yàggal ak ñoom yàlla yàggal seen taxawaay may sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla yàggal taxawaay bi sama xarit bi nga xam ne tamit balay saburi sëñ Mbàkke maaram su ma la taggee dana jaaxal ñu bari nag waaye nag Mbàkke Balla faaw ma def ko ndax ñun dañoo xàmmeewut jaan ju mag ak jaan ju ndaw ak bi ciy góor ak bi ciy jigéen ak bi bi ñuul ndax saa bu ñu jaan màttee dañuy dem lugg ko kon waxin la borom xel yi laay waxal bàllay sa yal na yàlla yàggal taxawaay bi guddal sa fan barkeelal liggéey bi bu baax a baax a baax a baax ndax Mbàkke nag dangay ndey gi seex di tëddee njaaxaanaay te ñu am ci yow yaakaar lool nag te fee nga ñu teewal ca péncum ndaw réew ma lu ne nga fay am lu ne nga fay xew te bàllay sa kenn déggulu ci waaye nag amaana kenn du la ci mës a dégg ba mukk nag ndax nàmpoo ko nekkul ci sa deret te ko te doo ko doon ba mukk yal na yàlla yàggal taxawaay bi. Euh, jërëjëf soxna Aji xel yi dal na aussi tamit ñëpp kontaan nañ ndax dafa war a wax lu am solo euh, dafa tëddee njaaxaanaay ndax dafa boote ñëpp ñëpp nekk suñ ginnaaw mais nag dañoo jàkkaarloo ak ay saay-saay saay-saay ñee dañuy taxaw ci ginnaaw di sànni xeer. ñii dañuy bëgg a ñëw dugg ci suñu biir ruur ñu pour jaxatee ñu ñun ci suñu biir loolu nag buñ ko nangu benn njiit la ñu am moom la yàlla booleel mooy sëñ Cheikh Thioro Mbacké ci Pastef ñëpp la àndal ñëpp la méngool ci kaw loolu nag muy liggéey liggéey bu am solo à l'Assemblée nationale wax na ko léegi bu jugee wax ñëpp kontaan te wax ju muy wax day doon wax bu am solo ndax lan la sëtu sëñ Touba la mënul mel neneen kon moom la jox kàddu gi ñu may ko loxo bu baax a baax a baax salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di jiital ci nuyu bi ak siyaar bi Cheikh Mahamadul Muntaxa di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi loolu te wér di ko ñaanal kilifa diine yi ci réew mi yëpp tey moom kàddu yi mënoon naa ñàkk sax ndax li ma waroon wax lépp li si bëri bàyyi ji wax na ko ak ñu fi jaar ñëpp waaye mënuma tàmbali samay wax te njëkkewuma nuyoo bi bàyyi Mbàkke Njaay waaw ndax man moom bu dee man bàyyi la ci man ndax lu bëree bëree bëri ma koy rendre hommage ndax projet bii Pastef bi muy nekk fukki nit ak ñaar fukki nit moom mënoon nga waat ci yàlla ne bokkoon na ci projet boobu ndax présidentielle 2019 yi bokkoon na ci rare personnes yi nga xamante ni ci Touba wooteeloon nañ président Ousmane Sonko kon moom mënoon nga ne yàgg naa nekk sympathisant mais bu ñuy wax Pastef ay carte de membre ñoo koy symboliser kon ñi ngi jaajëfal bu baax soxna Aji Mbàkke ci kàddu yu rafet yi mu yëkkati li mu wax ci man lépp ci moom la nekk moom moo baax rek ndax ku baax moo mën a seere lu baax waaye ñun bu ñu amee soxna aji ci parti bi dañ koy gërëme soxna Anta Mbay kon soxna Anta ñu ngi lay rendre hommage fii ndax bi ma lay jël li ma la waxoon rek mooy sa ndam dëgg-dëgg mooy nga dugg ci parti bi duggalaal ci mbooloo te loolu day wane ne wane nga ko sa discours tamit ku ko dégg di borom xel dina xam ne parti bi moom yaatal rek moo ñu jig ndax bu ñu yaatal duñu am ndam fañ jëm ndax Ousmane Sonko benn nit mënu koo fal ñaari nit munu koo fal mbooloo rek moo ko mën a fal te dañoo gëm ne mën naa soppi réew moo tax ñu ànd ak moom bi ñuy dugg ci projet bi it xalaatuñu woon ni lépp dinañ ci fekk benn yéene rek lañ amoon mooy yóbbu Ousmane Sonko pale mu soppi réew mi kon yéene boobu ba léegi tey lay gën a dëgër tey lay gën a engagé wu. moo tax bu ñu jóge woon dakaar tey jii ñu ne ñu dañoo am benn installation cellule bala ñoo dem suñ kër dinañ jaar ci installation cellule bi dool dem suñu kër ndax ñu ñoo préféré def politique. kon soxna aji ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax ci effort yi nga def ndax mënoon ngaa yem fi la sëñ Touba rek mooy nekk sët sëñ Touba di laaj addiya yem ci sa liggéey mais boo gisee réew mi fii mu jëm nga ne du ma yem foofu dinaa futteeku dugal sama loxo ci politique bi loolu amee nañ la njukkal bu baax a baax a baax a baax mais ni ko Baye Mbacke wax rek politique moom yaakaar naa jaamu yàlla féete ko kaw ndax ku gis réew mi ni muy doxee nga toog di seetaan yaakaar naa di nga am responsabilité bu egg ci kanamu sama borom ndax ñi dëkk ndaamaatu jàpp naa ne kenn wóor leen a njëkk def politique boo gisee ndaamaatu situation yi ñuy dund lu matul ci ginnaaw ñëw naa fii ñu def benn manifestation bu mag a mag a fii ci ndaamaatu booba lan lañ doon jàmbat mooy tali ndaamaatu bii nga xamante ni ay liggéey yu bëree bëri bëri yàqu woon na ci kenn xamul ñaata liggéey ñoo yàqu woon ci tali bi bi mu yàqu woo yaakaar naa bi ñu jógee def manifestation sëñ Mountakha woola woon nañ ñu ne mboolo mi ko seqoon biñu eggee gisuñ ko mais ci suba ga recevoir nañu leeral ko yaakaar naa booba la solution am ba tey ji ku fi jaar sa xol dina sedd guy guy guy loolu mooy politique mooy li nga xamante ni état war na koo def te defu ko nga fàttali ko mu def ko ndax ci Sénégal la bokk di contribuer ci budget Sénégal lu ma 13 pour cent ci ay impôt kon amul dara lu ko état war a defal ñun ñuy tàccu naan état jërëjëf ndax Touba dañuy fay impôt di fay ay taxes kon état Sénégal damaa jàpp na li mu war a def Touba defu ko kon ndawi Touba yi jot nañu xam lan mooy seen responsabilité ci dëkk bi dugal seen loxo ci politique te jàpp naa ne ñun politique bii nii ñu koy defee bu sëñ Touba doon del si mën nañ ko defee noonu ci kanamam ndax politique moom bu ca ay fen génnee ay wor génn ca mën nañ koo def fépp ndax jaamu yàlla dong la xamuñ lan mooy diine mooy nit mën naa jóge ci gaarasu mécanicien ba waxtu julli jot mu dem ca kanam jiite feeg comme egguñ foofu ci diine Sénégal xamaguñ lan mooy diine diine du yore bu rëy diine du dara ju rëy diine ay principe la kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla saxal ñu ci kon damay rendre hommage sëriñ moor mii ndax maa ngi koy wax léegi nii sëñ moor Dieng mii ndax maa ngi koy wax léegi sëñ Moustapha Gaye ne ko kii bi muy nekk sympathisant Pastef yàgg na ndax élection 2019 du tey Touba Sourang commune la ci Touba moom moo fa nekkoon suñu mandataire keroog bi muy jëlee PV yi bi mu ñëwee ñaari nit ñooñu wooteel Touba Sorong ñaari nit te jaral na ko mu jógee Touba mosquée gi dem ba Touba Sorong ci ab moto jëlee PV yi ñëwaat kon moom yàgg naa gëm projet bi kon nag Mor Dieng ma ma xamoon 2019 ba léegi Mor laa xamaat léeg-léeg mu woo ma du jot mais na xam ne ñaan gu ñaan gu nangu moo mel noonu ndax ñun ñëpp la lañ ñaan yàlla kon dañu ñaan yàlla suñu borom nag cellule bii nekk ay cellule yu bëree bëree bëree bëri ba Pastef Touba ni muy màggee nga xam dafa jaaxal ñëpp président Ousmane Sonko ku mu recevoir lim lay njëkk wax mooy xoolal ci Pastef Touba loolu nag du Cheikh Thioro Cheikh Thioro lu tuutee tuuti la ci liggéey loolu équipe la boo xamante ni équipe bu déggoo suñ biir la saydaane bañ am suñ diggante aw yoon loolu moo ñu may lii ndax absenté wu naa ci terrain bi lu yàgg yàgg yàgg mais heure bu ma xoolee Facebook bi sama xol day sedd day mel ne kon Cheikh Thioro moom lu tuuti la ci liggéey bi kon bu kenn yëngal say mbagg ne jàpp ne yaa yor Pastef bala ngeen a a dox ndax nit ñi ñoo bëggal seen bopp président Ousmane Sonko kon dañuy beneen bi ci topp it may rectifier benn beneen bi ci topp rek may rectifier li ñuy wax ndax lii du section section communale moo koy am lii cellule la Pastef ni mu organisé woo commune bu ci nekk benn section moo fay am benn coordination départementale am fa leneen lu ci topp ay cellule lay nekk kon lii lu mu bëri bëri cellule ci Pastef la mais du section kon section benn section la muy section communal bi am Touba kon cellule bii day ñaan yàlla mu nekk ay téeméeri téeméeri ndax 200 cellules du ay caaxaan te jii ñu war a ñëwaat bu monté suñu 205 cellules kon 5000 cartes de membre yoo xamante ni jaay nañ ko ci Pastef Touba loolu vraiment du ay caaxaan kon dañuy ñaan yàlla rek 2024 buñ ca eggee président Ousmane Sonko ñu élire ko premier tour Touba sooyu ci wàllu rëy rëy rëy rëy ndax Sénégal kenn mënu koo gañe saa perte saa nga gañe Touba kon lii ñu ko wan ci élection législative yi war nañ ko ko ci élection locale yi kon élection présidentielle yi Ousmane Sonko compté wu na ci Touba lool bi ko waa Touba wan Touba moom damay faral wax duñ duggantu ci mbir li sëñ Mbay Jaxate wa waxoon rek ne bul gaaw a dugg ci mbir bul gaaw a génn ci mbir li gaaw a dugg dugg di bon gaaw a génn ko yées Touba moom buñ ne la yow a yow a buñ ne la déedéet du déedéet te nee nañ yow a Ousmane Sonko te war nañ ko ko ci élection législative yi damay ñaan yàlla présidentielle 2024 ñu wanaat ko ko yóbbu ko palais boobaa wàccoo nañu ak moom te Sénégal gi nga xamante si Ahmadou Bamba doon na ko ñaan yàlla Sénégal googu Ousmane Sonko dina réaliser wu ci réefam barke sëñ Touba jërë Euh, jërë ngeen jëf léegi dañuy jox euh, sëñ bi mu def ñaan rek ñu tëj.